chưa đâu Gần đi người chơi cứ phi hoài Luôn chỉ nhà một cô lời Ông muốn lên chính chính C'est un scandale du jour de ce jeudi 4 janvier 2024 fait VIP People Nous avons eu un ex dañuy def lo xamantene euh, loxo day dem ndax di maître li mu nek mandataire ci Ousmane Sonko mom nak ma caution. li nga xamante ne mooy les trente millions kii di Ayib Daffé moo dem en tant que mandataire révision électorale yi fële ca conseil constitutionnel ñu ne kii di eh, maître Clédor lii moom mooy mandataire Ousmane Sonko d'accord ba tey benn la ndax ñoom ñoo bokk seen Ousmane Sonko ñoom ñoo xam bokk seen Ousmane Sonko waaye nag li ma jaaxal mooy lan moo tax demul waa ji nag dinañu la lan moo tax demul ak li ñu ne maître Clédor lii dafa feebar dafa malaise moo tax demul ndekete yoo dara du ci dëgg ay tàppale nen nen nañ dem ci seetaani vidéo bi ñëwaat. monsieur X loolu il faut ñu wax ci <laughs> avocat bu mujjee doon mandataire waaw ah, loolu duñ ci wax wala. <laughs> waaw mais parce que euh, l'avocat est au courant parce que euh, moom jour bi

ah ñii seen seen xelu kii la ñu maintenant nag bon. ah mais non excusez-moi voilà. avant ngay continuer moom mu génn mu wax mu ne il est il est malade il est souffrant ba tax munul dem muy lu bizarre loo xamante ne moi je l'ai expliqué ici koo xamante ne nii seen xeex yëpp mooy euh, mu bokk ñu dem ba jël dossier yi andi mais waa léegi sëñ bi ñëw leen ñu càmbar nga ne dew ma quand même sëñ bi euh, t'as pas besoin d'être intelligent loolu ça fait bizarre. parce qu'il va y retourner le 5 avec ah. le 5 il y a le 4 euh, la cour suprême va essayer de et voilà euh, l'affirmer la cour suprême euh, va confirmer la peine de 6 mois avec succès qui va l'écarter définitivement ce qui va avoir conséquence sur l'essentiel de la cour suprême Mm-hmm. je ne veux pas trop communiquer ces affaires je peux réveiller le bas pour dire que voilà euh, mm-hmm. et certains de ses cadres mm-hmm. ils sont au courant que le gars a vendu leur projet maintenant ils font le ils bruit c'est-à-dire les gens ne ñi pas seetlu quoi mon cher après euh, meeting wu euh, sur le 30 b bi est gars annulé mais El Malick dafa am benn phrase boo xam ne les gens c'est comme une anesthésie c'est-à-dire des des militants de passif de c'est fait exprès rester à l'écoute mais loolu bu fekkoon ne Pastef mi ngi doon passif dëgg bu bu fekkoon ne y avait rien en dessous mais ñi ngi naan gars yi résiste résister est un devoir ne génn affaire yooyu mais rester à l'écoute lu leer nga wax de <laughs> hein? leer na de non mais les gens moo tax moo tax mooy cher politique daal xam naa ko mu jaar xeex ak xuloo daa xamul li xew rek. <laughs> waaw avocat bu mujjee doon mandataire loolu duñ ci wax waaw loolu moom duñ ci wax parce que sénégalais yi ñoo ñu sénégalais yi laa xamul man ban genre lañ surtout ñuy ànd ak Ousmane Sonko nag mais pourquoi duñu posé wu question démb Ayib Daffé moo nekkoon mandataire Ousmane Sonko tey maître Clédor Ly en tant que avocat moo nekk mandataire. waa ji nag dégg nañu révélation yi mu def maanaam kii di Ousmane Sonko mi nekk Cap Manuel mandataire am gii di maître Clédor Ly li tax demul fa ca conseil constitutionnel c'est parce que mu ngi woon Cap Manuel yow nga war a dem conseil constitutionnel yow xam nga ni def nañ tirage Ousmane Sonko nekk quatrième position nga xam ni jox nañu datu révision yi nga war koo fekki te nga xam ni boo ko fekkeewul du ñu def révision nga xam coono bi sénégalais daj ci Ousmane Sonko ak ci bëgg mu nekk candidat waaye nga ne nga jël loolu yëpp féetale ko ne dem Cap Manuel toog fa di waxtaan ak Ousmane Sonko du samay wax na waajee ko wax moo def ay révélation nee na deful benn malaise nii lan mooy seen jikko manipuler nit yi ñoom li leen war duñ ko mës a def chaque jour dernière position la ñuy ñëw maanaam dañuy bàyyi yoon bi nga xamante ne moo nekk ci yoon bi ñu war a jaar ñu wàcc ko dem jël beneen yoon yow nan lañ lay woowee conseil constitutionnel nga war a dem fekkee li nga xamante ne mooy révision yi ak li ñu daj ak li ñu sonn ak sénégalais yaakaar bi ñu am ci Ousmane Sonko mu jàll nekk candidat yow nga dem toog Cap Manuel di waxtaan ak Ousmane Sonko mais est-ce que à la fin ñun ñoom yabuñu sénégalais yi wala ñoom dañ ñoo jàppee ñoom lan lañ ñu jàppee au fait te bu ñu jëlee yenn décision yi ñu naan ñu naan kumba am ndey ak kumba amul ndey te ñoom ñoo doxul ci dara yoon wiiri wiiri rek manipuler rek wiiri wiiri rek toujours attirer l'attention se victimiser que les orli, un avocat boo xamante on l'a toujours respecté gagné nga fu nekk plaidé nga fu nekk waaye bi nga duggee ci Ousmane Sonko nga mel ni ku ñu xaftal bi nga duggee ci Ousmane Sonko nga mel ni ku ñu liggéey bi nga duggee ci Ousmane Sonko nga mel ni am xale bu ndaw boo xamante ne jaaral fii duggal fii génnal fii lañ lay wax chaque jour ko jiyee fee nga nekk xale rek ñu lay ñu lay yóbbu rek di la pimpong rek matin soir di jëm arrêté keroog ñëpp ñu ngi doon xaar te boo demoon day leer dañuy valider wala du valider day leer mais dafa mel ni loolu ngeen bëggul yéen si boppam buggoo leen leer buggoo leen lu leer doxoo leen ci lu leer topp di lëndëmal suñu xel yi rek dañuy fattu rek am ñoo xam ne nelawuñu fanaanatu yendawtuñu ndax ndax ndax ndax ndax ndax ndax yàqamti wala bëgg xam ndax Ousmane day bokk wala du bokk ginnaaw bi ñu newee ni parti bi ñu dissoudre képp ku fa bokk mënoo nekk candidat sénégalais yi wow la rek ñenn ci sénégalais dëgër bopp rek